la tax ça c'est pas le problème. ah mais moom leurs intérêts amul capacité de négociation vis-à-vis de la grande surface. ah bon amu ko parce que il a en face de lui un contrat d'adhésion mënul négocier ak moom parce que kii benn njëkk lay jëndee. Mhm. boo bëggee moom lay jënd ci yow boo bëggul mu jënd ci sa morom. benn mode de paiement la am jours la lay fay wala 120 jours. oui mais Or, mais, mais c'est parce que tout fi nga ubbi Babacar c'est très intéressant fi nga xam ne moom lañ doon xaar état. te mu nekk déficit dans l'environnement des affaires. Mhm. tey jii. waroon nañu mettre en place ay règles yoo xam ne. Mhm. Euh, sénégalais yi ci seen bopp. dañu di protéger ñooy taxawal benn centrale d'achat. qui rachète toute la production et qui est l'interface. mais nag faute bi lan la. qui mais mais mais directeur nag la. on a tellement on a tellement la concurrence. mais foofu laa mais solo la concurrence mais foofu laa bëgg a wax. c'est pas interdit mais ce que ils ont attendu ñoom xaar nañu lu yàgg. ba am ñoo xam ni ils ont proposé peut-être quelque seen bopp. ils ont toujours dit que partout ah foofu c'est plus cher yéen a ngi fay def non Sénégalais bi grande surface bi boo gisee mu am ruée vers là xam nañ ne même waxuma sax ci li ñuy dépenser mais xam naa daal ils sont plus à l'aise là ils sont plus en sécurité. ok mais yéen euh, commencé leen ko. ils ont commencé peut-être que ce marché-là dont tu parles bu fekkoon organiser lañu parce que je crois que les ah. entreprises sénégalaises même sax Cheikh loolu peut-être euh, moom nañ ci wax. Mm-hmm. comment euh, xaalis bi euh, le gouvernement en tout cas les autorités di xaar si yéen. fan ngeen koy génnee parce que man le président Macky Sall pas lui ah benn débat bu amoon mais les gens avaient dit que le secteur privé national pour nga pour nga génnoole leen financement mais c'est un problème. en tout cas ils n'ont pas les reins solides. pour mën a c'est un procès gis nga xaalis li la ci docteur Khadim mu wax moo ci nekk gis nga état bu bëggee nga am xaalis nga am xaalis parce que moom amul problème mu am xaalis. état mun bu la ngembee habilité la. jox la jumtukaay yu jox la kayit yi nga war a yi nga war a yor. foo dem ci àdduna bi am xaalis. Mm-hmm. donc relation boobu la ñu war a structurer gis nga li nga xam ne. mooy jàngat bu rëy bi nga xam ne def naa ko ci conseil présidentiel bi mhm. secteur privé domestique tey jii bu amoon bu doon am ay ndaje régulière ak président de la république mais yu bari réglé nañ ko. Mhm. parce que cadre la boo xam ne dafa manqué dafa manqué secteur privé. maintenant pour finir ah. fréquence boobu bi mooy administration bi li ma jàpp si waxu docteur Bamba Diagne. Mhm. mooy que ni l' efficience quand même ah l'utilisation efficiente des ressources publiques. en tout man li ma gisee mooy que ni est vrai lourdeur administrative yi am na solo kii na. mais également euh, c'est vrai que am na effort yu bëri yu ñu def du point de vue diminution euh, des dépenses de l'État am na mais je crois que am na lu bëri lu des parce que boo xoolee léegi tu rencontres des gens yoo xam ni peut-être seen oto bopp la ñu jënd. wala sax amuñu oto la ñu jënd mais ils vont dire que parce que mesure yu bees yi nga xam ne président Macky Sall jël na moo moo leen xañ oto ah. <laughs> parce que loolu c'est non vraiment takk nañu euh, biiru ci côté boobu. ah a des économies qui ont été réalisées il faut le reconnaître mais je crois que ba léegi des na. des na cher parce que l' administration aussi il faut que ñu xoolaat naka la mën a gën a liggéey non seulement mu gën a gaaw mais également na mu xootee dépense yi xam nga on parlait rek barki démb le président Macky Sall bi muy dem fan euh, mais mais quatre-vingts véhicules ko yooyu bu muy def sa tournée là ah, moom nga bëgg ah mais man dégg naa y a des politiques qui sont engouffrés là-bas ñu ne dañ cee dugg mais presque bokkuñ ci côté président ku ci nekk nag ku ci nekk waroon ngaa toog sa bureau liggéey parce que nekkuñu ay chômeur ku ci nekk a nga toog sa bokk liggéey perdre nga 24 heures wala 48 heures yoo xam ni mën nga ko jàggal liggéeyu askan bi mm. je veux dire que loolu l'administration la réforme de l'administration loolu la wàññi politique bi au niveau de l'administration gis nga même après bi ñu defee cour des comptes bi mu génnee il y a des rapports yu génne que ni même au niveau de la cour de comptes ak tout cas des instances des corps de contrôle c'est politisé loolu euh, dañ ko dañ ko constaté je crois que loolu tamit bokk na ci li nga xam ne day xajamal liggéeyu administration bi buñ ci gën a taxaw peut-être dina jur lu bari quoi. bien sûr mais Ousmane yéen lu ngeen di xaar pour formaliser wu yéen tamit. mais cher. nit ñaa ngi formaliser wu mais xam nga formaliser processus la. processus la du loo xam ne da ngay tëb tëb rek def ko mu sotti processus la. di ñaan est-ce qu'on a l'impression vous vous plaisez dans ce que vous faites comme ça quoi secteur informel mi ngeen ci nekkee daf leen neex daal. da leen fay benn taxe yéen ngi ci biir. <laughs> mais xoolal xoolal liy dox ci réew mi ak li dul li dul dox ñi jotoon a formaliser ñu ngi basculer à nouveau dans le secteur informel parce que contrainte yi dafa bari.